ko ñu waxtaan eh, ndax budul dara nak ya mu jural samay doom te it nga mo sey bu rafet donte ne nag saa su ne ngi rayanti ci kër gi donte ne it Ia bii may tak neexu la banyak yàlla moo ñu diggal ñu tak ben ba ñaar ba ñett ba ñen man li may def araamul limay def dama ko tek ci diina ak l'islam dama bëggoon rek ñu waxtaan ci jàmm ak salam waxtaan bi ñuy waxtaan nak du dara lu dama bëggoon rek nga wax ma sa takku deun ma xol ni mu rafété ak ni mu baxé ma yëkëti ko jox ko ndax wax dëgg yalla nak nga ko te ya mu juural sama taw Ya mu jural ki nga xamanteni ni mo gën ci man yor kër gi yor la yor ma wax deug yalla teranga junne defal nako bayam yow nak so demé bu jural ma koku ah ngàcce ngàllaama nak, man maa la deseel dig dal damaa bëgg rek nga ne ma ah deureum li la bëgg nga defal mako takku dënn ma yëkëti ko numu mu ma tek ko ci say loxo li dal mo mo mo waral dërëm. Mhm. xam nga lu ma bëgg takk bi nga dindi ko teg ko ci suuf man soxloo ma sa takk dënd laaju ma la takk dënd man xiifu ma maru ma raflew ma lépp loo ma nar a jox rek am naa ko yow bul fàtte ne yow ma maa la yor mak sama do? wala yow dangaa bëgg lu ma neex dangaa bëgg lu neex. sooda sooda li nga wax. moo tax ngay moo tax ngay neexal li nga wax bañ naa ba ne la sa doma ma yor sey nga fi sey bu rafet li nga wax lepp dàqu ma ci dara waye limay lima dul nangok yaw nak moy sey bi du am du am sey bi sey bi du am jaaj maa ngi lay moccu de sey bi bés bu amé dina melna gaynde sa kaw maa ngi lay moccu nak soxlo ma sa moccu maa ngi lay woo man fa ma nekkon ba tay ma nga fa dedet bima ma ba tay ma nga fa sey bi du am tay du am suba jaaj fi nga nek baxu juk fa fofu la nek nak fofu gën ci man sëy bi du am sëy bi du am tey du am suba. amee mais Diagne ah maa ngi raay nag yaa ngi yëkkati sa baat. yow bu raay wuy ma bu raay gis nga fu tool nii da ngaa cokkal sa xel mi tegoo ko lu dul ci xale bee yow xanaa même bu dul dara nga seet say nawle nga set sa doom ji jigéen ji xaritam intime sa yaram du daw. xoolal man loolu dawul sama yaram. yow ndeke liñ naan góor du seexlu man mais yow wan nga ma preuve bi. waa d'accord léegi nag waaye gis nga kaamax la. li nga xale bee jabu mee dina mel ne xarum tabas xarum ngénte ci yow waaw d'accord sa xarum ngénte loolu nga yaakaar dina ko mel ci yow loolu nga yaakaar léegi nag xam nga lan la dama doon mocc di neexal ngay dof doflu namu ca yabu ca ku ñu ca këdd nga jël waxuma la bëmëx de këmëx li nga bañ loolu laay def damay takk xale bi ci mu lay neex ci mu lay naqari dégg nga loolu ngay bañ dama koy tàggat boo déggee ne da ngay këdde daa fekk sa ñaari tanki yi nekk ci yow ak sa ñaari loxo yi nekk ci yow yow gëmoo li ma la wax ci dama lay ray ci biir wut saako def la ci biir sanni la fee xajja di loxo ci yow ku dul man kenn du la jëriñoo yow koy dag ñaar tanga yow metti ko yor dibiteeri yow man ngay dag sama ñaar tanga sama ñaar la yow yow nit nga te xam nga lan la sax ah? wax ji liko guddal liko gattal moy kër gi bu fi ñaareel jibati ñaareel la ba mu jëbati fii ci biir gi mais Diagne ñaareel bu jibee ci kër gi luy xew waaw na jib ci biir gi mais ñaareel laay ma ne ñaareel du jib laa wax ñaareel doo ko takk doo ko takk doo ko takk waay yow yow maa ngi xaar ba nga tuddati fi ñaareel loolu lay xaar hmm. Hmm. Hmm. kii dafa dof wala lu ko dal et vous m'emmerde Hier weg. Teich, vies. Daarmee tak. En zijn. Wat zeg je dan? Wat zeg je xeeñul neex de. lan xeeñul neex. fee. fee. bu ngaa dëgg-dëgg. fee xeeñul neex. waaw mooy fee xeeñul neex ak xeeñul lu xew. du danga maa yónni woon. pour may dem si moom. waaw ma wax ak moom. ma dugg si biir kër bi. Ah, moo yegg ko escalier yooyu mooy boobu ñuy dox benn benn. ma dox benn benn benn benn benn benn boo si kaw ah. ma nuyoo si suuf kenn déggul ma àgga si kaw. wax waxal lan ma nuyoo da nga wax ma wax la lan lay dégg fekk si kër bi ma dugg si kër bi ma ne salaamaaleykum jam ñalle man jam ñalle man mhm. mu door ne ma ñalle ji sa waa na nga mhm. ma xam ne saal booy dugg da ngay summi sa dalla ma summi sama dalla ma nuyu ko nuyu bu rafet hmm? ma ñëw toog jàmm sante ko ñu jàmm sante ko nangu may wax ak moom ma ne ko man may nakar ak turam li mu ma njëkk a wax mooy turam ndekete seen kër ay dof ñooy nekkam sax lu tax ko. dama xam ne yaay sama digganteeg dërëm bii nga bëgg a bu taxaw ci digg bi ne du am lan moo tax te man dërëm laa bëgg yaay bàyyi ma ma sëy moom. gis nga nit da ngay xool lu rafet nga di ko def yow même bu fekkee ne sax man duma bañ nit nit ki noppam ni man di jullit di man duma ko bañ doon naa wax ak yow fii sax. mbërki démb waaye li ma ci gën a jaaxal mooy sa diggante ak Ardo gis nga nit dangay sàmm kóllëre nit day am kóllëre te Ardo sax seex la du sa xarit sax yam ci yow lii tey bu fekkee yëg na ko yow lan ngay wax Ardo yow lan ku la wax loolu boobu bu del bi bu del bi kooku yu mel ni Pepe Kale waaw kooku noonu moom laay wax yaayu sa sa jabar bi waaw comme gaynde buy jaay ndawal bi mu toog ci sees bi def fees de lépp kane bi ma ñëw mu ne ma yow xanaa dangaa dof ma ne ko di nga gis si man dof mus nga gis ci man luy nduru ak dof man ma ak dërëm ñoo ko bokk ndey ak dërëm mm-hmm. moomu yónni pour ñu waxtaane ko mm-hmm. affaire sa sa doom bi mm-hmm. mu ne ma sama doom du leen du du doyewul leen dara ndax dërëm bu fekkee ne yow la du duma ko may jabar moom moo la wax loolu ma ne ko man xanaa damaa takka ginnaaw kër wala lan laay def nuy naa la saliyee wax naa la li dorom pugu ngay wax ma lenen lan nga pugu luma gëna nakari ci lool si du lool hmm. mu hol sama chaay bi mu ne ma ngay def ci kalma ci kalma bobu nak mu ma wax du mako ko bal bo boo laakara beneen bu ma lay attention di nga defene am nga jabar kono duñu wax dom ndey ja laaj bañ rek holal ci bir wen bi waaye ni ma gisee yaayam foole bis boo takkee jabu nga indi ko si kër bi ah dina taal gaas bu mu xon ko mu def ci sa côté taat yi yow yaay xalaat loolu jabu xalaatu ko yow yaay xalaat loolu yaay man mii sax neexuma bu ma sañoon du demee nii mais mënuma si dara yaay xol du om bañ koy bës te dërëm mi bu ma rëccee man gëm naa ni du ma sëy ndax moom laa bëgg moo nekk sama xol ah man dama jaaxal nga ma ne ko dëgg yàlla nag jaaxal nga ma de. man moom sama yaay danga maa war a jàppale ci li ma bëgg nga ànd ci ak man nga dimbali ma yaay yaa jàppale ma. ba ñu ma laa jàppale man àddooy sama problème déggoo li ma la xanaa. man kaawu ardo yaay dinaa ko gérer. waa nooy gérer kaawu ardo. dinaa gérer kaawu ardo dem di wujjeeg yaayi ardo yow xool nga bu baax li ngay wax. yow tey bu fekkoon ardu def na la ko dina la neex ah waxal rek bu fekkoon Ardo def na la ko laax dina la neex. dinaa jéem a comprendre yaay. déedéet doo ko comprendre ma dal nii. man bis de man man li jaboot li war eh, parent rek laay def man maay sa waajur li ma ci mën def naa ko li ma ci war def naa ko li ma war a dox dox naa ko. muy tànk njaboot ak dox la ma war a dox. yow waxoo fa dara lu garaaw ba tax ñu wax la lool. yàlla xam na ko yi dama nuyu ko saluement ça va na nga def ana wax kër bi ndax waa kër bi nit ñi dem nañu marché. baax na baax na ñi xale yi dem nañu école yooyu laay wax rek mu feree neem. baax na baax dama ko faale. baax na léegi man dinaa régler sama bopp sama problème man dinaa fa dem. Oh, parce que li mu def ni moy daf laa xeeb hmm. te man nak du ma nangu kuy xeeb sama dret deng nga man nak wa baax na jarul lol lepp sagam nag yow ne nga lima la wax lol nga fa wax waaw jeexna problème bi neex naa lijjanti yow bul dar am dara lu le métti waaw jabu mom dina ko tak ci jam ak sa ak salaam ah. ta problème du am yi ci xalaat yi yep du ci am waaw ah, la ko def lavage de wa wa yooyu du ci am dina la régler lepp sa xol dina sedd mom buma ma jàkkaarloo mom face à face. wa yow la yapp way man yóbbu man dem na fa wax ak mom ta lama ko wax deg nako waye xeyna yow daf la gis xeb la ak ni nga mel. wa waye nak dina ko wan ne ko man kaw moma ma leen gënal ñaar bayil ba ma may li jënt problème bi. jeex na man amoo problème waye wax na ko bu té sama jëkkal ma dina ñappal sama waay. lool bax duggal ci bir ma ngi ñëw. c'est ça jeex na duggal ma ngi ñëw. c'est ça. César, guajolot. César. nga japp fi nga japp rek waye war nga xoolaat bu baax sa ginnaaw bala ngay dugg ci li bu la sa xol nak di pousser ba duggal la ci lo xamanteni goto lay doon te do ko man doo meuna wagne ko waxna la nak lu leer xolot bu baax li ngay def man mom ardo moy sama problème ken du sama problème man waxi deureum sax waxatuma ko man xoma deureum xoma bébé deureum mais man ardo moy sama problème wax naa la nag li ma lay wax yaay xool nag waa baax na dinaa xool yaay bu dee ardo mooy sa problème man dinaa xam fi ma koy jaar te bis bu ma duggee ci kër googu sëy dinaa doon jéegu buso dinaa dox ci jàmm dinaa wax jàmm dinaa yem fiñ ma yem loo luñ ma wax loolu lay wax ah. te yow say jaral na la lii. dërëm jaral na ma ko. ah waa baax na naa xool naa jéem a bësante sama xol-xol comme yow mën nga koo gérer nee nga amul problème mu ngi noonu. naa ko def na nga xam ci li li nga dugg rek fexeel ba xam ko rek. yàlla baax na man maa ngi ci jéem. waaw d'accord waaw. maa ngi sant yàlla maa ngi si jàmm. alhamdulilah yàlla. maa ngi sant bu baax. waaw yàlla na sant yàgg. xame nga ma man Alhamdulillah. suuf ah, oh, yang waaw waaw xame naa la ça va yaa ngi ci jàmm. ça va alhamdulilah bien merci jabu la bëgg a takk. waaw léegi lan mooy problème bi. bon dama gis ni jantam mel nga rek. léegi loo ma ciy wax loolu. parce que paa bi mu bëgg a takk. Hmm. du bu baax. pardon. du bu baax. waaw léegi. sa papa ki mu bëgg a takk. du bu baax. waaw dégg naa ko. booy maa ngi li ngeen yàgg na ah mën na nekk man mais loolu wóoruma parce que lijjanti wu ne xaw ma woon sax ndax moom ngay génn wu paa kon mënu ma yëg sax yàggaay ak moomu paa. d' accord ok. comme yow góor ñi. en tant que hmm. gentleman rek moo doon bëgg a wax ak yow. ni boy maa ngi dañoo yàgg. Mhm. jot nañoo am dom sax mais dom bi dafa dellu. ah ok pour damay ragal sa papa bu buggee laabaanu suba teel. woo ngéeje wala am naa sàmm. pour que mu xam ni du bu baax. fim mhm. mu baax. loolu moo tax nga taxaw ma ni li ma wax lenn rek laa lay dolli. Mhm. comme nga sama morom nga. ñu def ko affaireu gentleman mais yow defo affaireu gentleman parce que li ngay def ni du yefu gor yalla gis nga gor day nangu bu ñaké am ni na bu mëne dem ñafé ba récupérer waat alalam mu récupérer xam nga la nga wara def jantal nga yow dama récupérer waat fam bi bu bëgg nga ko bu am nga chance pour and ak mom mais du ni ngay di deram warul jigéen nu mu metti metti ba ngeen doon ànd neexoon te am na lu ngeen seqoon li ngay def nii ku ko defoon sa sœur bu ma doon génn ak sa sœur ñëw di wër di def lii dina la neex hmm? ñëw naan ko an amoon nañu doom sa papa moom lay waaj a takk jigéen ngay waxal Fall ah jigéen ngay waxal. man dama amoon loolu rek pour wax la ko. non déedéet parce que bu ma rombee may dem nga taxaw ma fii. ba mhm. ngay wax dama am grandeur déglu la. Mhm. ngay wax ki ma jur lu la neex maam grandeur deglu la di encaisser yowat nekkal gentleman nga deglu dama ni bu doon sa sœur la nekkal di wër di yak deram nii nan tëddee ko amna ak mom ay dom nekkul bu baax bi wala li. rafetul lepp xol ko ci bu doon jabu même bu sa ak mom bu jéxé mais na rafet parce que demb non na noonu la mak di def non la gor yal di def mais du damaa ñàkk rek dama ciy xëpp suuf donte paa bi li lim koy takk man neexuma mais jabu jigéen la sutural ko moo gën a rafet conseil bu ma lay jox rek en tant que nit ak nit koo romb ci mbedd taxawloo ko di waxtaan ak moom wax bu bu bu bu waye di wax bu ñàkk kersa dama lay dénk rek d'accord frère on ngay fa wax naa puso dëgg bu reer la mhm. kon da koy for waaye mag da koy for nangu naa ne li nga wax mhm. mais li ci dol tuutal dama deg sànq rek ngene tel que sa papa da koy takk sa papa mo la tool lu ma la mën wax rek bo paree mu ngi dem ak djiko sa papa toñuma de ndax batay da bul djum waxuma la sama papa ma toñ ndax mo fek sama gel diko tak wa toñuma ma sama sama morom toñuma ma papa nu mu mel góor la dafa war a takk yow yow sax ya mag wa batay tey bu la neexee ku la sa sikim bi tas bi xam ne mag man de bu la magee feñul ndax yow li ki gentleman lo lu bes la xamna ni yego ko say say wi ma wuy ma bii xam naa ne yëgoo ko. yow mënoo ko am saa yi dama ni. dama ni na na na waaw na na dëgër waay jabu bu mu la dofloo bu mu yóbbu sa xel góorgóorlu.